cheikh Muntaxa ca Tuuba mënoon na ni limu mu wax ci fan yi bu ko ñëpp doon déglu di ko jëfe kon kenn mën na bañ a wax te doy loo wax jooju ndax euh, boo dee lim ci réew mi ñi fi baax Ceerno kenn du ci gën a placé ci mbaax feeñ na ci bindam feeñ na ci waxam feeñ na ci jataayam ah fa tabarakallahu